bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu bi ak ci barab waxtu bu tedd bi ñu nekk ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu jégal nu te jégal leen di ko ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu tawfeexal suñu kilifa gu mag gi ne ci suñu kanam bàyyi ko fi lu yàgg lool te wéral ay cëram may ko tawfeex ba mu àggale yéene yi nga xam ne yéene ko ci yoon wi yéene na ko ci yéene na ko ci yoon wi yéene na ko ci yoon wi yéene ko ci diina ji te ñu ànd ko ak moom xam nañ ne mboolem yónent yi nga xam ne ñoom la yàlla mës a yónni ak ñi topp ci ñoom di ay defarkat yépp li leen mës a itteel mooy defar doomu aadama yar ko yar ruuxam yar jikkoom yar aw yaramam ba mu dëppoo ak ni ko sunu borom tabaraka wa taala bëggee xam yàlla ragal ko te topp ko walla ci gàttal rek mooy ñu amal ci moom liimaan ju mat ak lislaam ju mat ak lixsaan ju mat tarbiya boobu moom ma sa nekk seen liggéey ñoom ñépp ñu doon woote ci yoonu yàlla xam nañu cheikhul xadim radiallahu taala anhu nag bokk na ci ñi gën a rëy ci yarkat yi waaye bokk na ci ñi gën a réussir ci ab yaram moo gën caa am ay jeexit waaye ci yar boobu mu doon yar nag da daan jëfandikoo ay jumtukaay yu bari ci yar boobu jumtukaay yooye bari na lool te wuute waaye wuute ga ak bari ga yépp mi nga aju ci wuute nit ñi ñi ñuy yar ak seeni jikko ak seeni xol ak seeni feebar yoo xam ne moom lañ indaale ci moom kenn ku nekk mu di la yar ca na nga dikkee ak sa xaal fa mu toll ñu ko ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woon wa rabbihim bilhimma wa rabbi kulla waxidin bi ma yaliqu bi nga leen yar ci itte te kenn ku nekk bu dikkee nga yar ko ci la yel la yey ci moom lam déggool rek ba nga xam ne lam indi lam déggool nga yar ko ca eh, jëfandikukaay wala moyen boo xam ne mu dëpp ak boobee moo taxoon mooy yi muy jëfandikoo bari lool ci yar ndax wuuteeg jikko yi ak wuuteeg melo yi bokk na ci jumtukaay yam doon jëfandikoo ngir yar nag mooy li ñu tuddee alwasiya muy dénkaane dénkaane ak laabire yoo xam ne daf koy jubale ci ñi muy yar dénkaane yooyu nag ay laabire lay doon ak jubanti yoo xam ne yu am njëriñ la ki koy joxe mooy ki nga xam ne dafa jaar ci yoon wi ba jàll am expérience bu mat sëkk ba xam ca lu bari loolee mu ca xam nag mu dajale la ci gën a am solo di ko def ay dénkaane di ko def ay laabiri yu muy laabiri ñi topp ci moom ngir ñu mën koo jariñoo ci seen adduna mën koo jariñoo ci seen alaxira loolu la ñu tuddee ay dénkaane nga xam ne mën naa bañ a doon ay ndigal wala muy ay tere yoo xam ne yu warla waaye ay laabire lay doon yoo xam ne la muy laabire ku ko def day yokku ci sa adduna dara wala day yokku ci sa alaxira dara may la texeeg adduna may la texeeg alaxira muy laabire yooyu nag di wasaayaa yooyu dénkaane yooyu lislaam moom da cee yàgg ba lislaam ñëwagul sax euh, ñi nga xam ne boroomi xel lañ daan nañ ko jëfandikoo seeni jaar-jaar ñu di ko laaj biir ñu leen topp ba gis nañ ci shu'araul jahiliya ay woykat yu bari yoo xam ne ay laabir yu am solo lañ doon def ci seeni woy di ko baaxee ñi nga xam ne ñoo ñoo leen di diglu waaye bi lislaam dikkee itam dafa saxal loola gën koo defar buñ jàngee ci alxuraan danañ gis yu bari ci ay barab baatu wasiya di ci ñëw wa wassa biha ibrahim waaw wa isqaala luqmaana libnihi wa yaithuhu muy wasiyatu luqmaan ak ay yeneen aay yu bari yoo xam ne wasiya da ci ñëw muy dénkaane ay laabire ay orientation yoo xam ne ki mag wala ki njëkk ci dara da koy fab di ko jox ñi topp ci moom ngir ñu mën koo jariñoo noonu mu baree ci alquran lool noonu la baree ci hadis yonente bi salallahu alayhi wa sallam moom it di ko jëfandikoo lu bari ci ñam doon yaree boo demee ci addis moom it dangay gis ay ay ay barab yu bari ay ay saxaaba di wax na awsaani awsaani bokk na ci awsaani xalili abu urayda moo ko nettali na awsaani xalili bi thalathin siyaamu thalathati ayamin min kulli shahr wa rakaatay adduha wa an utira qabla an anaam ne yonent bi daan ma dénk lu bari ñetti mbir yoo xam ne da koy jàkk dénk ñetti mbir yooyu mooy woor ñetti fan ci weer wu ne ma woor ci ñetti fan woo koru ngàtt ak di julli yoor yoor julli gi yoor yoor fonk ko lool wal ak di wiitar julli wiitar bala maa tëdd ñett yooyu moom nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ma ko dénk ngir ma di ko sàmmanteel ak yu dul yooyu ci ay dénkaane yu bari yoo xam ne rod na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wasiyatu Muaz wasiyatu Abi Zar ak yu baree bari yoo xam ne ay dénkaane la yu am njariñ yoo xam ne yonent bi daana ko eh, laabiire daan leen ci orienté noonu mu amee ci jamono yonent bi saxaaba yi noonu lañ continuer ñoomit di laa biir ñañ àndaloon taabi'un yi wa taabi'un yi yëpp ak taabi'u taabi'un yëpp ñoom ñu topp ci ñoom di def noonu ñu doon def andi ay laa biir yu am solo yoo xam ne ba tey jamono mi ngi ko fi bay naka noonu mboolem borom xam-xam yi nga xam ne ci xeet wi lañ bokk ak defarkat yëpp ak yarkat yi yëpp rawatina nag ñi nga xam ne dañoo askanu ci tasawuf moom ñoo ci gën a xër ci wàllu googu ñu askan ci tasawuf ñoo gën a xër ci dénkaane di def ay laabiire ndax ndigal yi ak tere yi moom mi ngi fi ñëpp xam nañ ko wala dañ koy fàttali rek waaye laabiire yii nag bokkul ak ndigal yooyu ak bokkul ak tere yooyu am solo la yoo xam ne ki ci jaar ba jàll moo koy xam ki ci jiitu moo koy xam euh, di dimbalee ko ñi nga xam ne jaaraguñ ci ak ñi nga xam ne euh, dañuy door a tàmbali léeg-léeg nag euh, laabire yooyu lu ci gën a bari day day am imtidaat maanaam day day day mën a day mën a traversé jamono ak nit ki nga koy waxal léeg mu jóg jëm ci kenn nit waaye njariñ la day weesu kooka ba jëm ci képp koo xam ne bëgg ko jëriñoo waaye bu dee jëm dana dana jëm ci jamono waaye day weesu jamono yooyu ba jamono ju dikk mën koo jëriñoo nga xam ne moom day traversé nit day traversé jamono ki ko taxaw na jóg mën na koo weesu jamono ju ko taxaw na jóg it mën na koo mën na koo weesu ba ca jeneen jamono ci des yëpp ñu di ko jëriñoo buñ gisee ci labiré yi nga xam ne Seexul Xadim radiyallahu taala anhu wasaaya yim yim yim jot a def gis ci ay wasaaya yoo xam ne da koy jëmale ci ak nit waaw ñu gis wasiyatu soxna Penda Guèye soxna Penda Diop gis wasiyatu sëñ Adama Guèye gis wasiyatu sëñ Abdourahmane Lo yooyu yëpp ay wasaaya la yoo xam ne ci nit la ko jëmale waaye wax ja moom boo ko seetee ci ñëpp la jëm kenn nit moo koy tax a jóg wala ca ci moom la jëm waaye ñu ci si ñëpp dañuy mën a jariñoo wax joojee ci jamono yu nekk ak ci euh, heure bu nekk léegi-léegi mu nekk ay wasaay wasiya yoo xam ne ay woy lay doon ay woy lay doon yu bari wala léeg-léeg mu nekk ay wesar yoo ne yu bari la waaw yooyu wesar yooyu nag eh, eh, yu bari la moom bari nu ñu bari xamuñu ko yàpp nañu sëñ sëñ Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ay woy rek la def waaye li mu def ci ay wesar ci loo xam ne ay wasaaya la ay dénkaane ay laabiire yu muy laabiire taalibe yi daanaka sax boo koy seet day bari lool te ñu ump na ñu baree baree bari waaye lu gën a bari ci wasaaya yooyu nag rot na ci ay téere yu xam ne ñoom dajale nañ ko ba noppi Cheikh Abdou Lahad radiyallahu taala an yàlla ko fi yàlla yàlla ko yàlla dolli ngërëm dajale woon na ca lu baree baree bari ci ay jamonoom am na benn mañ moo bu mañ moo Cheikh Abdou Lahad loolu nañ ko noonu nañ ko noonu nañ ko xamee nga xam ne euh, noonu waaye mañ moo tashtamilu ala baadi ajubati Cheikh al Xadim ah wa wa wa wa wa shay'un min in isharatihi wa baadi wasaayaahu li di muridihi nga xam ne wasiya boobu Sëñ Abdou laaw taala anu moo ko dajale woon muul ko ci jamonoom silkul jawaahir fi axbaar sarair buñ ca demee moom it dañ ci fekk ay wasaaya yu bari ay dénkaane yu bari yoo xam ne sëriñ bi moo ko def moom it si dajale woon na ko muul ko ak benn mbooloo moo xam ne moom it ay ab bu rëy la boo xam ne sëriñ Mouhamed Diagne yàlla ko yàlla dolli e, ngërëm moom it moo ko dajale woon ci jamono yi Cheikh Abdoulaye Mbacké sëriñ Iblaat dajale ko fas yéene ko muul waaye yàlla dogal la muy dogal ci moom sëriñ wu dikk daal di koy mottali radiallahu taala anhu mottali ko móol ko moom it mu génn nga xam ne ñetti ñetti mm, téere yooyu yëpp ñi ngi fi te daa fees dell ak ay wasaaya yoo xam ne Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala moo ko def am na beneen euh, euh, téere boo xam ne moom it ay wasaaya dong la la la la feese te ki ko defoon daa fekke woon sëriñ bi ñu di ko wax euh, téere sëñ sëriñ sëriñ silla bàyyi sëriñ silla moom it ay wasaaya yu bari la dajale yoo xam ne ci jamonoy sëñ bi la ko dajale woon moom it mool nañ ko yooyu yëpp nag ay ay ay ay téere la yoo xam ne boo ca demee fekk ci wasiya yu bari daayiratu rawdu riyaahin ci jamono yu mujj yi dajale na mboolem téere yooyu mboolem téere yooyu génne wasaya ya ca gën a am solo def ko ci benn téere boo xam ne moo ko dajale mu tuddee ko min wasaya cheikhul xadim radiallahu taala anhu mu am solo lool moo xam ne yëpp moo dañ koo gëstu ba am ko te ay yu wasiya yëpp yu am solo ma nga yooyu nag bari na lool ba dañ cey jukkat rek yañ ca waxtu wi maye la ca waxtu wi maye rek moom lañ cey jukkat seet yi ci gën a am solo nga xam ne dëppoo na ak jamono wala nit ñi dañ ko gën a soxla ñu fas yéene ko waxtaanee ci ajuma yi di ñëw incha allah tabaraka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 وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول إلا إلا kon loolu mooy dénkaane muy loo xam ne nag yàgg na fi ndax buñ ko xoolee ci lislaam day mel ni dénkaane ñaar lay doon nit ki am alalam jël ci ab xaaj ne bu ma génnee àdduna nañ ma ca defal lii wala nañ ma ko joxal kii loolu lislaam dafa waral ca ña ko donn ñu wëyal ndénkaanam booba ci charte ya nga xam ne moom la ci lislaam tëral waaye am na ndénkaane yoo xam ne moom it ay wax lay doon ni mu mel ni yii ñuy bëgg a wax ay ndénkaane yoo xam ne nit da koy bàyyi gannaawam muy ay wax yoo xam ne dafa bëgg ñi ko bàyyeel man koo jariñoo ci seen diine man koo jariñoo ci seen adduna moom it na wëyal bale waree biitam ay wax la yoo xam ne ñoom it ñi ko topp bu ñu bëggee jariñu dañ koy war a wéyal ci seenu ci seenu dund wasaay yooyu nag ni ma ko waxee léegi bari na lool ci téere yi noonu la itteelee sëriñ bi mu boole woon ko ci yi muy jëfandikoo ci ay yarinam bari loolo bari gam bari moo tax dajale googu ñu ko dajale mu am ay mañ moo at yu bari yoo xam ne rod na ca ba toll noonu mu toll di lu am solo loo xam ne eh, taalibe yëpp war nañ cee dellu ndax moo xasida yi ñooyam ay xasid ay ay ay mbindum sëñ bi la mbindum sëñ bi la ni nekkee mbindum sëñ bi wasaayaa yooyu noonu nekkee mbindam mu itteel leen ko lool bari na ci yoo xam ne sax ci mujjug dundam la ko def kon wane na ne kon itteel na ko ba bi mu fiy jógee loolu mi ngi koy itteel wasiya bii ñuy bëgg a jàng bokk na ci wasaaya yi nga xam ne yu gën a am solo ci yi nga xam ne bàyyi na ko gannaawam te bi mu koy def mooy jëkk muy dem ci géej gi rek bu bokkul bu dul bi mujj itam bokk na ci yim mujj ci yim mujj a def bu dul bu mujj bu mujj bu fekkee du bu mujj waaye bokk na ci yim mujj a def jëkk muy dem ci géej gi dénk ko taalibe yépp jëbale ko ci ñoom te ay laabiri yu am solo na ca tàmbule ba mooy ma nga tàmbule ci yéen taalibe yi noonu la leen wooyee yéen taalibe yi yalla na leen yàlla fegal lépp luy tiitaanga ak luy ragal maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla wasikum bi taqwallah maa ngi leen di dénk ragal yàlla mu màgg bi ndax ragal yàlla kat am na solo goo xam ne Seydina Aïcha radiallahu taala anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa dara musu koo yéem ci àdduna dara musu koo yéem ci àdduna waaye dara kenn musu koo yéem tam ku dul ku ragal yàlla kenn mosu ko yéem ku dul ku yàlla képp moo ko mos a yéem nee na jëlee nañ ci saxaaba bu yoqataada mu ne maktubun fi tawraat yabna aadam ittaqillaha wa nam xaytu chita nee na tawraat boo ca demee te tawraat bu ñu tawraat rek mooy tawraat ba nga xam ne moo jugee wun ci sunu borom ko wa laa la ca jugee wuute wuute ak alquran waaw charu man qablana charun lana loolay ca newoon te te jugee ci yàlla te soppiwuñ ko lu lu luñ jubale ci noonu la ndax alxuraan dafa dajale yooyu yëpp la ca wér lépp dajale ci alxuraan waaye nee na nekk na ci tawraat sunu borom tabaraka wa taala wax ca ne yow borom yow doomu aadama ragalal yàlla bu ko defee nga am kóolute gu toll ni mën ngaa nelaw fu la soob boo ragal yàlla mën ngaa nelaw fu la soob tax que kóolute yàlla day ànd ak yow foo mën a nekk rek mu ànd ak yow mu ne lenn ci borom xam borom nit ñu baax ñi dem na ci benn nit ne ko dénk ma dénk ma aw si nii dénk ma waa ju baax la ko wax ne ko dénk ma mu ne ko usiika bi wasiyatillahi rabbil alamin lil awalina wal axirin danaa la dénk dénkaane boo xam ne yàlla moom la mas di dénk ñi fi jaaroon moom lay dénk ñiy ñëw itam benn dénkaane la boo xam ne ñi fi jàll ak ñi ñëw ñëpp ko bokk ñëpp la ko sunu borom tabaraka wa taala dénk mooy lu mu doon wala xad wassayna allazina utul kitaab min qablikum wa iyaakum an ittaqullah nee na yàlla lim leen dénk yéen ñii am ab ak ña jëkkoon ñëpp ak yéen ñi di ay julit di jullit yi yàlla li leen dénk mooy nangeen ragal yàlla na ngeen ragal yàlla ndax yàlla subhanahu tabaraka wa taala nee na inna akramakum indallahi atqaakum ki tedd dëgg-dëgg mooy ki ragal yàlla teraanga dëgg-dëgg mooy ki ragal yàlla ab ragal yàlla ab teraanga newut ci juddu newut ci aw sant wala newut ci ab aw tur wala newut ci ndey baay bàyyi waaye teraanga dëgg-dëgg mooy ragal yàlla ragal subhanahu tabaraka wa taala ka gën a tedd daal mooy ka gën a ragal yàlla ci ci yéen daal képp koo xam ne bëgg nga tedd ngay àdduna na nga ragal yàlla daal daraja bi gën a rëy ci tedd nga nag mooy wattu lépp loo xam ne lor yi diine ma nga ca wattu lépp loo xam ne lor yi diine ma ca te loolu mooy lan mooy mooy yàlla ak i caaxaan mooy yàlla ak i caaxaan na ngeen ko wattandiku loolu mooy lor diine day yàq diine mooy yàlla ak i caaxaan na ngeen ko wattandiku maa ngi leen di dénk tam ngeen di sàkku xam-xam ndax mooy yoon bi nga xam ne ci la ñuy jaar ba mën a ragal yàlla yoonu ragal yàlla ku ko bëgg am il faut nga sàkku xam-xam ndax yàlla kenn du ko jaamu ci ak réer faalam annahu laa ilaha illa allah tudd yàlla bi nga xam ne mooy dugal nit ci diine yàlla dafa ne xam ko ba noppi xam lu muy firi xam ko ba noppi nag door ci dugg ne faalam annahu laa ilaha illa allah képp koo xam ne soobu nga yoonu yoonu alaxira nee na na xam lu luy wéral sa topp yàlla loolu da sëñ bi digle képp koo xam ne bëgg ngaa sóobu alaxira soobu na nga xam lu ci sa diina loo xam ne mooy wéral sag jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam jël nañ ci hadis mu ne ngëneelal kii jaam ngëneelal boroom xam ci kii kii boroom xam-xam buy jaamu yàlla ak kuy jaamu yàlla te amoo xam-xam ni mu ko gënee ni ma gënee sama xeet wi rek noonu la noonu ko boroom xam-xam bi gënee boroom xam bi xam ba noppi di jaamu yàlla ni mu gënee kii jaamu yàlla te xamut ni ma gënee sama xeet wi rek noonu la ko gënee wax na wax na ci beneen addis boo xam ne nee xool xool aji xam boroom xam-xam buy jaamu yàlla xool ko rek ak say bët nee na moo gën a sopp ci man jaamu yàlla ak at boo xam ne daa ànd ak woor daa ànd taxaw guddi woor bëccëg taxaw guddi li muy foor foor lépp xool benn boroom xam-xam buy jëfandikoo xam-xamam la nga cee amee ci ab yool doo ko amee ci koor go euh, euh, at moo xam ne da ngaa woor bëccëg yëpp di julli guddi yëpp kon loolu rëy la loo xam ne wane na darajay xam-xam wane na ak eh, rëy goo xam ne xam-xam rëy na ko waaye nag nee xam-xam nag li muy rëy ak li muy am am njariñ lépp waaye nag na ngeen xam ne wa usikum bil ilmi baada al amal li ngeen xam nag da ngeen xam ne da ko war a jëfandikoo waaw bu leen jàng mukk ci lu dul jëfandikoo lu ngeen dul jëfandikoo wax nañu sahaaba yi radiallahu taala anhum buñu masaan digg ci yonente bi laaj ko fukki aaya dañ naan doy na dañuy daw doy na duñ ca yokk dara dem jëfandikoo ko ba mel na war a mel ñu si laajaat ko yeneen fukki ay ngir bëgguñoo jàng lu njul jëfandikoo bëgguñoo jàng lu njul jëfandikoo ndax fa inal ilma bi manzilati shajara wala ibadatu bi manzilati samratiha nee na xam-xam daa mel ni garab mooy mooy mooy garab gi waaye meññetum garab gi nag mooy jëfe mooy jëfe meññetum garab gi mooy jëfe loolu sëñ bi wax na ko fu nekk xam-xam ak jëfe xam ba noppi jëfe waaye xam-xam bu jëfewut moom ñàkk xam ñooyam waaw nee na asalul basari radiallahu taala anhu nee na na ngeen sàkku xam-xam sàkku goo xam ne du leen dox seen diggante ak jaamu yàlla du lool jaamu yàlla gi na ngeen sàkku xam-xam te bu mu dox seen diggante ak jaamu yàlla waaye na ngeen daa jaamu yàlla ba te jaamu yàlla goo xam ne du dox seen diggante ak sàkku xam loolu li muy tekki mooy boole leen xam ak jaamu yàlla lépp lu ngeen jaamu yàlla gu ngeen di def na ngeen fexe ba jiital xam-xam do door ko def boole ko ak jaamu jaamu yàlla waaye bu leen ci bàyyi leen jàpp leen bàyyi la ca des déedéet bu leen def loolu na ngeen boole ñaar yépp ndax xam-xam mooy ilimaani jëf moo koy jiitu waaw wala amalu taabi oxu xam-xam mooy mooy jiitu jëf dikk topp ca waaw waaye bu ngeen demee bay xam lu tam wa aksiru takraara aqaidil imaani nazaran wa ifdan waaw na ngeen na ngeen na ngeen jiital xam-xamu aqida aqida aqida jëpp xam na ngeen ko jiital muy pas-pas bu sell waaw pas-pas bu sell na ngeen ko jiital ci bu ngeen demee bay bay bay xam lu dane wa wa wa allimu zimaarakum maa awjabahu llahu ala kulli mukallaf nee na na ngeen xamal bu ngeen xamloo ba xam bay jëf bu leen yem ci seen bopp rek waaye na ngeen xamal seen njaboot gépp lépp loo xam ne yàlla togg na leen ko ñu war koo xam na ngeen ko xamal seen njaboot loolu responsabilité bi borom kilifa yépp la képp kuy kilifa te kilifa du rek ku ilif nit rek kilifa ka ku ilif nit rek kilifa nga ci moom loolu la la war ci moom la nga xam di ko jëfee nga jàngal ko ko ba mu xam ko moom it di ko di ko jëfee yooyu nag pas-pas yooyu nag nee na juróom eh, benn fukk ak juróom-benn la nee na juróom-benn fukki pas-pas ak juróom-benn mooy pas-pas yi nga xam ne képp kuy mukallaf war nga koo xam te jëfe ko war nga koo xam sa xamal sa njaboot te jëfe ko nee na yooyu yëpp nag juróom-benn fukki yeeg juróom-benn ngi ci laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah baat boobu rek li muy gàtt-gàtt làmboo na mboolem pas-pas yooyu nga xam ne mooy juróom-benn fukk ak juróom-benn yooyu waaw te ndax la muy firi mooy kenn kenn kenn kenn koo xam ne sa bopp doy na la do soxla woo kenn te ñëpp la soxla yàlla rek la loolu la laa ilaha illallah muhammadu rasulullah di firi laa ilaha illa mu laa ilaha illallah mooy ku doyloo boppam soxlawul kenn te ñëpp soxla ko ku dul moom rek soxla ko te moom soxlawul kenn mooy allahu tabaraka wa taala kon loolu mooy moom la laa ilaha di firi loolu nag nañ ko xam ndax sëñ bi leeral nañu ko pas-pas yooyu ci tasawuf di sixaar boo ca demee pas-pas yooyu yëpp yu aju ci loolu leeral na la ko fa la war ci yàlla ak la jomb ci yàlla ak la daggan ci yàlla boo demee la ci yonent yi ak la dagan dagan ci ñoom ak la war ci ñoom ak la jomb ci ñoom lépp leeral na ko foofu ci tasawud sixaar ak ci yeneen téere yi nga xam ne liggéey na ko liggéey na ko kon loolu moo aju ci wasiya bu njëkk boobu nga xam ne benn xaaj rek lañ ci jël dañ ci dañuy continuer moom ba wasi bi jeex ñu jëlaat yeneen wasiya waaye boobu rek bu ñu xoolee danañ gis ne lu am solo mi ngi ci muy woo nañu ci ragal yàlla xamal ñu maanaam woñu ci bala ñoo ragal yàlla nañ dem sàkku ji xam-xam ba xam ki ñuy ragal ku mu doon waaye buñ xamee nañ jëfee lañ xam ndax meññetum xam-xam mooy jëfe waaye buñ ko defee ba noppi lañ xam te di ko jëfe nañ ko xamal suñu njaboot ngir ñu mën caa eh, ànd ak ak nun loolu lépp Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu laabiri nañ ko ñu war koo jëfandikoo ci yi nga xam ne war nañ ko jëfandikoo wajal jami al ulama ya amilin wajal jami al amilina muxlisin wajal jami al muxlisina zahidin wajal jami zahidina nasihin wajal jamii annaasihin alsaadiqin wajal jamii alsaadiqin alfaaisin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu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 rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaam حي على الفلاح alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin ashrafil mursaliin nashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu shahaadatan dii ixlaasin fi tawxiidihi ونشهد أن سيدنا محمدا خلاصته من خلقه ومختاره من عبيده أما بعد فيا أيها الناس اعلموا وفقنا الله وإياكم أن النصيحة في الدين awjabaha allahu taala fi qawli nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qaala alayhi alsalatu wassalaam addiinu nasihatu qulna liman ya rasul allahi qaala lillahi wa likitaabihi wa lirasulihi wa lia'immati almuslimina wa ammatihim فالنصيحة لله هي الإيمان به وطاعته بالقلب والجوارح والنصيحة لرسوله تصديقه فيما أخبر وجاء به واتباع سنته ونصرة دينه والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم ومعاونتهم على الحق وأمرهم به وإعلامهم بما غفلوا عنه من أمور المسلمين وحقوق عباد الله تعالى والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ما يصلح آخرتهم ودنياهم وتعليمهم بما جهلوه وأما الكتاب وقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الطول الواسع والفضل المدرار العزيز العليم نشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله روضة المعارف ومنبع الأنوار أما بعد فيا أيها الناس وفي الآية التي أسلفنا ذكرها وحديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الإيجاب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلهما وجعلهما الشارع الحكيم للقادرين عليه ثلاثة أقسام اسم يكون إنكارهم باليد وقسم يكون إنكارهم باللسان وقسم يكون إنكارهم بالقلب فبهما في جميع الأوقات يتحدد يتجدد الدين فتحيا الشريعة وتنتعش ويحصل اتحاد المسلمين في دينهم ودنياهم ولا يسقط الإنكار بالقلب عن مكلف أصلا إذ تركها إذ كراهة المعصية من مرتكبها واجبة على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم تقربوا إلي إلى الله ببعض ببغض أهل المعاصي فالقوهم بوجوه مكفرة والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم ومن حق كل من ينصت إليه أن ينتفع بوعظه وينفع الناس به وأن يحترز من اتباع الهوى في جميع أقواله وأفعاله وأحواله نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة بخديم طه عليهما الصلاة والسلام آمين يغفر الله لنا ولكم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 ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن asalaamaaleykum.